asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu fattaahu wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki lifta wa habliya wa wasukni ku dina ana dayqi asil ajilan bil bishri mahmaridin xata uqima di dini laahi arkana yasir joxani di tuuba wax mi ni waqi ni adal wara watujib li samaskana kasama wal aradi wa hawa biya musharikin li muskuna ajib salim si min xasan di muhammadin wala utah li fayaxan bana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sa muhammad sina wa wax mi xamna amin asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu ñi ngi siyaare ñëpp bu ñu jiitalee siyaare bi ñu jiitalee sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla ko yàlla gën a dëgëral gën gën ko dolli tawfeex te te teg ci sëñ Ababacar Si moom moom teewaawoon kon kon kon laaf ci kon xalifa sénéro yëpp rek ceene baa Kawlax ak Njaasaan ak fépp rek ñu laaf leen ci ko ko xam naa kon di nuyoo di nuyu waa al abdul xadim waa tarbiya ruuxiya waa al madrasa xadim yi di sant nag sëñ abdul xaadir buso ñi nga xam ne abdul xaadir buso cumb leen moo wax noonu gën a leer sëtu sëñ sëñ cumb leen buso la sëtu sëñ sabu aminda mooy moo war a réaliser kii bi nii waxtaan wi nii xam naa waxtaan wi dañoo bëgg a def waxtaan boo xam ne noonu dongay daara yi ñoo ko moom noonu ñooy waxtaan di leeral di ko jëmee ci rëyisul jumhuriya alxaaji Macky Sall lañ lañ koy jëmee ne ko noonu kat dongay daara yi noonu lii mooy sunu xam-xam ci li li yëngu ci fan yi yaakaar naa coow lu bari am na ci ndaje moomu amoon ca Saly ca ca Mbuur sa ministre bind na dara wax ne moom fekke woon na ko xam naa ne yow yow moom nee nga yëgoo ko loolu na xam naa bu dee noonu suñu réew africain yi lu lu ne mën naa xew te président du ko yëg waaye xam naa lu xormu la waaye noonu débat boobu ku ku mel ne Babacar Mbuub ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu bu baax def na ci ay yëngu loolu moom wetu politique géeg yooyu mën naa man sama yoon nekku ci noonu noonu noonu dongay daara yi liñ bëgg a xam leeral rek mooy yëf yi lu mu doon dëgg-dëgg ba kilifa yi diine yi xam ne lii mooy yëf yi ba lu mën daa am su ëllëgee ñu xam ne kon ñoom ñooy responsable yu yu yu mag yi ci seen kanam borom président Macky Sall yaakaar naa amul conseil technique ci ci l'islam xaw xaw ma ba xam nag ci nasaraan yi xaw ma yaakaar naa amu ko déggaguma ko xam naa xam naa kon kon moom léegi kon noonu dañ ko bëgg a def doon ab conseil ci lii leeralal ko ne ko lislaam kat dii la ci référendum ba defoon nañ lu mel nii ab sorti boo xam ne ne ci Touba Vision war ne ko dagat ku la wax ne dagat na dëgganut te bàyyi la xel boo demee ci bàmmeel soxna Mariam Faye Sall mënu mënu la faa wétti li nangam nangam yow leeralal ko position yi boobu rek du mooy dongay daara yi loolu la ñu indi waaye ñun politique uñu anduñoo kenn xanaa ko du Sénégal waaw kon kon waxtaan wi kon kon ci tënk baatub saar rek saar mooy wax ji fan la saar jóge di ko andi nangam nangam ci bu ñu xoolee 2010 juillet 2010 ci la maanaam léegi loni daal di jël benn décision ci ne daa bëgg a daal jigéenu góor da nekk benn maanaam yemoon yemoon biñ demee ba ba junaayir wala janvier mille neuf cent deux mille deux mille onze gars yi di daal di koy saxal nag wutal agence spéciale boo xam ne jigéen lay saytu ngir nu ñu fexe ba mu yemoon ak ak ak góor la ko jiitu Michel Foucault pour philosophe bu mag ba français ba moom defoon na ci sexe jeans taarix xam lu tax daal nit ñi ne ko defee nii làq ko nangam nangam kenn du wax ay baat yu xaw a ñagas yoo xam ne yax dusu bil bil axlaaqiyat fadila kenn du wax loo xamante ne daal dafay dañuy wax ñàkk teggin mu ne yooyu daal amut yooyu sëriñ si ko fi defoon rek waaye yooyu amut waaw ndax maanaam nit nit la waaw war naa mën a jëfandikoo yaramam nu ko soppe waaw ba neex it nu ko bëgg nu ko mën a amee war na ko mën a kii waaye dekete sax monsieur Foucault moom dekete dekete moom it nag maanaam léegi góor jigéen la woon xam naa daal ci gàttal ma xam naa kon jumbul kon loo tax mu doon jéem a layal loolu lu ci topp 1949 auteur sexe al jinsul aaxar Simone de Beauvoir moo ko moo ko génnee kooku moom kooku moom féministe yëpp mooy seen sëriñ waaye nag nañ xam ne nag moom ab athée la mulhida gëmatoon diine waaw gëmatoon diine moo ko jëkkëram ja Sartre Sartre Sartre moom it athée la gëmuñu woon diine moom moom moom dafa wax wax ju am solo lool nga xamee ne mooy kiyam chanram moom la daa woote mooy dafa wax ne jigéen du juddu doon jigéen waaye ca yarba la yarba la yarab bi moo koy def jigéen góor it du juddu doon góor waaye ci yarba la ku am solo la ci noonu mu ko waxee waaye nag waaye nag coow li lan la coow li jigéen ñi ñoom ku ne xam ne ne Europe renaissance bi muy juddu asur nax da booba jigéen moom du dara waaw yaakaar naa jigéen yaakaar naa furul Afrique doon doonutoon dara naar yaag fu mën di nekk ca romain yaag yëpp jigéen moom obsi la woon obsi Afrique képp li jigéen doonoon dara doon pour demal ca Égypte Égypte bu njëkk ba laax noir ya Hatshepsut Hatshepsut ab buur la woon buur buur boo xamante ne boo boo boo mag a mag la woon ci Égypte yor empire bu mag kon noonu boo ñëwee ci Sénégal ci lu gën a jege maanaam léegi jigéen moo doon bóor waaw nga xamante ne demal ci Lat Joor rek Lat Joor Ngoone Latiir Ngoone Latiir ci ndeyam ci la doon ne nguur gi waaye moom ku ne xam ne am njóobeen du doon bóor waaye Ngoone Latiir Faal ci ci la doon ne nguur ga nga xam ne jigéen moo da ngay sax ci sunu aada yi sax noonu noonu ci noonu noonu ci bawal ñu wax ne ku ñuy dakkantelee ndeyam day day barkeel day gudd fan. la joon ko ni la laajte Matar Ndumbé Diop sëñ Mbàkke Soxna Lo Cheikh Anta Gaawaan noonu rek waaw sëñ Mor Jaara kuñ ko kuñ ko dakkante rek day am barke day am na kii day gudd fan mooy kon yu am solo kon kon kon daa mel ne Afrique daal ci la jigéen doone woon dara. léegi nag féministes yi ñoom ginnaaw dañ leen a doye del doonuñu dara ci ay quatorze dix-huit rek ci ci ci wala trente-neuf quarante-cinq ci la jigéen ci lañ ko libéré mu génn lu ko waral Hitler booba guerre bi metti na góor ñaa ngi dee nañ daanaka amatuñ amatuñ ko ku nekk ci usines yi liggéey ay bomb ak yooyu mu génn jigéen yi yu yóbbu leen bi garab bi jeexee jigéen ñi nag dootuñu delluwaat ci kër gi dañuy liggéey nit ci nee na erreur bi nga xam ne moom la civilisation occident bi def bi gën a fort mooy libéré jigéen waaw léegi demal ca demal ca christianisme wala sax anasani christianisme du ko wax boo ne masix yi day mel ne da ngaa saxal ne diine yàlla diine yónni yàlla ma almasix la tëdd moom kon kon ñi nga xam ne inaa nasara ñi ñi woote woon donc ay Seydina Masih alayhi salaam lañ boo demee foofa maanaam naa léegi jigéen dañ ko doy dil wax ne ni jigéen mook sexe jigéen mook njaaloo dañoo amul relation ndax gu jigéen aadama la ko génne ne àjjana ñoom nee ñu mooy jigéen awa kon nag léegi jigéen moom ku amul solo amul nag am demal ca Rome demal ca ca Rome yu jëkk ya latin boo demee foofa da ngay fekk ci Rome yi ñu daa wax naan jigéen moom dafa salte du dara dafa salte waaw yooyu ñoom daal jigéen ñoom mosuñu ko teg teg fenn léegi problème bi jigéen am même ci làkk tubaab làkku anglais moo moo gën a moo gën a kii balaa booba balaa booba nañ wax ne saar nag kañ la kañ la feeñ wala boo jox jigéen ak xam ne ñu mu yem mu yem góor 1994 ci Caire mu tamaru sukkaan mu tamarloon bu nu ñu ko waxee sommelé woon bu mag foofa maanaam léegi baatub saar ñëw na fa ca ca ca seen rapport ba juróom fukki yoon ak benn bu dee ci ci rapport anglais bi ba bañ defoon ci ca motoon sukaan bañ defoon Pikine ca Siin seen seen rapport anglais bi deux cent cinquante quatre fois bat bi ñëw na ci mooy SAR SAR wala gendarme xanaa moo ci gendarme en anglais mooy SAR lu tax ñu def gendarme mu nekk mu mu mu jëkk ndax coow la fa la nekkee anglais yi ñoo ko ñoo indi coow li maanaam ci bi nga xamante ne Angleterre tàmbali nañoo def ay usine di liggéey ay ay ay avion ki nangam ci la jigéen ñi ne kon faaw ñu dugg ci yëf yi nangam nangam léegi anglais li mu di xamoon mooy human being human being la xamoon mooy li mu xamoon mooy alkaayu insaan yi nit waaye da ngay xool human maan mi ngi ci biir waaye woman ñëw ci cosaan li kon ñoom dañ ne góor la ñuy xool ne nit ci boobu góor la bu dee ci anglais léegi human being ci juddoo ginnaaw human human being mooy mooy rek nit te loolu diine yëpp waxit ñu indi sexe mooy ko ba xam góor ak jigéen ñu ñu andi ñu andi maan andi woman seetlul woman bii bu ci maan génnee lu muy doon kon boo rek la doon de duutu amati maan a xanaa de kon kon ci anglais jigéen balaa doon dara day ànd ak góor maan woman day mel ne sax kon woman bu amutit góor am ndax góor a ko jur ñi nga xam ne noonu la ko diine yi indee léegi ñu ne ah féministe yi ne ne ne lii baaxul bu dee baatu sexe jins li tax ñoom ñu sànni ko nanguutuñ koo jël da dañ ne ginnaaw déggin bi ci làkk wi am mooy ne kat góor ak jigéen la te te te jigéen moom bu góor amul du am kon nañ dindi boobu ñu ne kon bu ñu indi kon sexe kon léegi dañ koy indi dañ koy far amatul ñu ne li gën mooy genus nañ dem ca latin genus mooy mooy daal cosaan cosaan nga xamante ne léegi yow su ma dee xool góor a wala nogay du ma gis jigéen du ma gis góor li may gis mooy human big lay gis foofu foofu lu dansé la de léegi kon man léegi su su ma doon dox di nuyoo man ab dongam daal di nuyoo fekk góor a jigéen jigéen ji talam loxo duma ko jox loxo mu ne ma ah doo ma jox loxo mu ne ko yow ko daa mel ne jigéen nga mu ne ma déet man du du ma jigéen de man man genre la genus li fi li fi ñëw mooy genre mu ne man kat du ma góor du ma jigéen genre la léegi gender mu ngi jóge ci genus gender mooy cosaan man man daal man daal nii laa mel waaye bul ma tuddee góor bul ma tuddee ci yéen ko kon léegi yow nit laa kon yuman bi moom ma ñëwaat ko kon léegi yow man nga ma nuyu léegi kon fii bu ñu fi dikkee da da nga dégg féministes yi naan jigéen moom am boppam sëñ naa sëñ naa kii sax ñuy manifester sax def yaramu neen léegi ñoom dañ dañ ne amoon na benn benn benn benn benn député ca France ca Italie maanaam léegi dana wax naan buñ ko buñ ko bëggoon doon député ca Italie ne buñ ma falee danaa daganal ñuy sëy ci mbedd yi maanaam nga xam ne su boobaa noonu foo koo wax rek foo koo nekkat ay sëy ak yooyu mbedd ba ki yooyu moom du dara nit rek culture beeg diine jeeg yooyu ñoo ko tere waaye dara ñëw si léegi kon saar kon li muy indi nag mooy yow man su ma defoon yaram leen ci ci ci mbedd mi bul ma xoole jigéen bul ma xoole góor xoole ma être humain ku am lu am dara ngi nii waaw kon saar daal di juddu léegi nag saar wala càndar da ngeen gis symbole bi bu am njëriñ la ñu jumbul ñu ñu ñu am na ñu ñu ñu way gis de waaye dafa mel ne seetluwuñ ko symbole bu am njëriñ la ci saar lii mooy saar symbole bi mën naa yokkuwaat defaat nii beneen defaat nii beneen ma cosaan li moo doon yow góor jigéen léegi ku dul góor du jigéen maanaam léegi transsexuel am na ñoo xamante ne mooy ñi nga xam ne dañoo sensé seen jëmm góor gu sensé jëmm mu doon jigéen jigéen ju sensé jëmm mu doon góor ñu ne mën naa nekk al-'aabiruna jinsiyyan lañ koy wax ci arab léegi ki nga xam ne moom moom dane man kat léegi jigéen laa waaye man yëg-yëgub jigéen laa am man jigéen laa moom lay xemeen ab góor gu ne fee daal ne man kat góor laa waaye man yëg-yëgub ci góor laa am kooku ba tey kon mooy troisième bi walla ki nga xam ne moom tey ñu ne jigéen yow kat ah am na lu amoon de umuma doon doon ndey ñu ne déedéet gars yi ne féministe yi ne loolu amul maanaam léegi loolu ki ki ko wax mooy culture ko wax wala diine waaye ndey amul bàyyi amul léegi même ñaari góor jigéen yi war nañoo mën a dem wuti doom amoon na lu xewoon 86 ca Afrique du Sud ak Angleterre ñuy maanaam naa léegi ñuy ñuy luye biir da ngaa da ngaa bëgg am doom kii léegi góor jigéen góor jigéen wala jigéen jigéen jigéen léegi ñoom dañoo bëgg am doom léegi nañ dem ab bi nañ dem ab bi xam nga kenn Europe kenn mënut a ñu mënut a wax jënd doom danañu Afrique nañ ko def di di di fi jënd ay ay nit di yóbbu waaye bu dee fee moom du ko ñemee ñu ne léegi kon yow léegi man ngeen a jël jël man yu mi ginnaaw ñu ñaari góor ngeen ngeen dem yóbbu ko ca ca laboratoire ba bu waree dem ba war a soxla woo ñu ëmb ko ñu dem abbi biir luyee ko ndaw sa ëm ëmb ko bu noppee doom ji yéen ko moom problème amoon na ci ndax am na ko ndaw sa ëmb noppi ba mu amee doom daal ne man daal doom ji mënu ma ko joxe loolu loolu muy lu am solo nga xamante te te te ne loola loola fi ñu toll bi bi ko tubaab yi def boobu ñoom ñu ñu ko jëm ci saar léegi droit yi saar am xam nga daaw rek deux mille dix neuf rek wala deux mille vingt boobu ci ci deux mille dix neuf jëm vingt ci la français yi léegi légalisé nekkat képp koo xam ne ab saar nga du wéradi yëg ne saar nga du du wéradi waaye ak nit la. kon léegi kon léegi noonu suñu yoon nekkul ci li ñu tuddee éducation sexuelle bi nga xam ne lii la bëgg a wax nee ñu juróom ña juróomi at lay tàmbali fi ñu toll foofa du si sëppee de sardin daal fa la lu lu kiim kaane fi ñu toll ñoom ndax bu buñ ko defee si sëppee day fekk xale bi mën naa am ndeyam dugal na ci moom dara ba ba kenn duutu ko mën a ji ci ji ci ji ci moom lu sax ñu ne déet jardin d'enfant bu ñu defee jardin d'enfant dugal ci xale bi di ko jàngal éducation sexuelle léegi éducation sexuelle ba bokk na ja jàngal ko ne ko yow kat sànq xam nga génne woon fi fan yii ci ci ginnaaw ay foyukaay ay ay xale yi di fonante léegi loolu fi ñu toll dañuy indi foyukaay yoo xamante ne nag moom góor ak góor jigéen ak jigéen góor ak jigéen mooy loolu góor ak góor jigéen ak jigéen ak ak góor ak jigéen ñu indi ko léegi nag ci ci xale bi bu dee bu dee ci programme bi ñu ne kat bokk na ci sax bokk na ca ka nga ne xale bi am deux ñu summi góor summi jigéen ne ko ne ko cër yi nii la mel fu fu ñu toll su boobaa xam nga lu ñu fi ñëwaat rek dañu naan dañu waaw ah yow ji yow yow gis nga yow gis nga ni nit rafete waaye yow yére yére yi da yàq yére yi da yàq de xoolal xoolal yow yére yi boo boo soree sa mbubb yi ni ngay ñaawe fu ñu toll boo boo summi ko woon ni ni ngay taaroo xool te jigéen ni mel xool góor ni mel loolu. éducation sexuelle kooku man damay jot ni moom yaakaar naa UNESCO bu ko bëggee dugal ci noonu it yaakaar naa alhaaji Macky Sall moom nee na yëgut xam naa moom insha allah moom du du ko nangu moom loolu moom yaakaar naa moom yaakaar naa moom du ko nangu loolu moom man moom foofu moom sama problème du foofu sama problème kay mooy ministère de la femme ministère bu jigéen ñi de la famille xam naa góor amu ci de daa daa mel ne góor amut ministère bu jigéen la ak nee na am néeg famille xam naa xam naa kon ci biir famille xanaa kon ci la ci la jigéen ci la góor gi dugg xanaa mu ne mu ne mu ne mu ne famille de xanaa jigéen du duggoon na waaye dañ koo per waaye bi solo bi mu solo di saar ak nag ki dul góor du jigéen sëñ Macky Sall moom daa mel ni fii rek man laa soxla man soxlawu ma yónni si koo baax la muy def sëriñ si xam ne ay dogay daara lañ ni man nañ xool fii ñoom ministère bii la ñu war a wax sëñ Macky Sall ne ko dindil saar coow li dëgg dëgg dëgg fii la nekk nekkul fee UNESCO moom yaakaar naa moom rajo Macky Sall nee na moom moom dañ koy sànni yàlla ba nee na sax wax ne gars yi jël leen seen dossier yóbbu loolu moom ga garawul waaye boo boo yóbboo dossier ba noppi nag sëñ bi bàyyi la xel ne kat saar mi ngi ci sa biir maanaam léegi état bi am na agence boo xamante ne spécial saar la foo dugg ci foo dugg ci ministère yi ñu tegal la fa saar ne ñoom kat dañuy dañuy aar seen i àq mus problème dëgg nag mooy sëriñ si buñ bàyyiwul xel danañ dem ba am xalifa saar xalifa boo xam ne saar itam saar ñu ne xalifa général de nangam saar ne nañ ko ba xel de te su boobaa luwaa yi ñoo koy aar danañ dem ba am imaamu saar imaam boo xam ne saara de état ñu tabax jàkka ja état financé ko mu tabax jumaam gaa yi ñëw ne saar du du fi jiite ñu ne la saar saar saar du fi jiite képp dalila dalila de yow sëñoo saar sëñoo koo bonal te boo ne saar da da nga koo bonal moom nit la moom xamut góor xamut jigéen nga xamante ne saar boobu day doon góor jigéen ba noppi dikk ne la saar laa sañ a jiite ci jumaa ji su boobaa nag danañ am ay fuqaha yu ñàkk solo yu ñàkk solo nag yoo xam ne ñooy ñëw layal ko waaw déedéet xam nga bu jëkkoon alxuraan dafa wax ne maanaam léegi ñu ngi jëkk a bind maanaam benn cellule boo xamante ne ci la lépp bàyyikoo kon kon loolu kon mooy saar rek danañ ko am danañ am sëñ danañ am do sëñ sëñ daara boo xam ne wala borom xam-xam boo xam ne lu xaw ma lan islam log lay doon xaw ma dana ko log moom ba noppi wax nit ñi leneen foofu kon mat mat naa bàyyi bàyyi xel yaakaar naa planning familial bi bi bi muy bi koy tàmbali ay ay ay ay lan ay fuqaha lañ jël yóbbu leen Égypte booba man maa nga fa diw ak diw ñi ngi dund yàlla nañ yàlla yërëm xaw ma ba xam buñ dee fuñ jëm ñoom ñoo doon layal ne maanaam léegi planning familial dagan na te boobu tubaab yi ko def ndax dañoo bëgg ne l'an deux mille cinquante deux bu ñu fa àggee africains yi dañuy bari te bu ñu baree mën nañoo ëpp nit ñuul nit ku ñuul mën nañoo ëpp ñu weex ñu weex ñi nag mooy américain australien ak européen ñooñu mooy ñu weex ñu des ñëpp kon ñoom dañoo ñuul. léegi kon léegi saar bii Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu Babacar Nangam dinañ Babacar Sy Mansour. ak seen moroomi xalifa sunoro yëpp ba leen xel fii noonu waxuñu ci éducation sexuelle loolu moom yaakaar naa moom El Hadj Macky Sall moom yaakaar naa du ko man ndax moom su ko bëggee def it gars yi lànk moom incha allah moom maanaam maître yi jàngale yaakaar naa ñoom xanaa xanaa xanaa dugg ñu xanaa xanaa ba ab dërëm du leen jaral yi xanaa yàq sa doom yàq sa doomi doom yaakaar naa ñoom du ko def ñoom kon léegi kon moom Macky Sall moom El Hadj Macky Sall yaakaar naa moom loolu moom du ko def éducation sexuelle waaye nag sëriñ si bu leen doy la foofu bu leen yaakaar ne rek éducation sexuelle bi du jàll déedéet am na beneen essence boo xamante ne mën naa jàllale éducation sexuelle ci beneen façon mooy day fexe ba kenn du ñemee wax kenn ne ko yow góor jigéen nga ku am problème ci góor jigéen ñi soo demee ca ministère ba ñoo lay toppatoo nga mën nañu dem sax ba jox la ay aide yow yow saar bi pour léegi saar mën a wéy ah waaye sëñ bi dégg ngeen ko fii ci Touba xale bu jàppoon boo xamante ne dañoo wax ne kat seen ñaari bajjan yi nga xam ne ñoo leen doon bëgg a maye topp nañ leen bañ leen di bëgg a maye benn semaine képp ñu war leen a maye. kooka ma nga ma nga kolobaan kenn kii ma nga ci ca sundëkkub sëñ bi nag maam Thierno dëkk Darou Mouhty bàjjan ba ci fa la nekk nga ne tuuti kon ñu may leen ñu ne kat ñoom kat ni kat ay gars yi seen bàjjan yooyu ñoo leen di financé ngir ñu doon góor jigéen lu am solo Touba boo xoolee Touba xam naa sëriñ si xooluñu sëriñ si ñoom ginnaaw duñ génn ñoom xooluñu waaye boo gisee jigéen xale yu góor yi ñi ngi ñi ngi lan ñi ngi xeesal ñi ngi yambarewloo yambar yambare yambare nga ne pour jigéene gaay gaay ci anglais fi ñu toll lu li muy firi mooy ko yambare ndax ca ay mille huit cent nangam ji jamono William Shakespeare gaay mooy ko koo xam ne mu xam na koo xam ne day day defaru ba ba mel ni jigéen léegi léegi kooku saar nangu nangu na kooku waaye fi ñu toll Tuubaa da ngay gis ñoo xam ne dañuy sol am na dàll yoo xam ne ñëpp ko mën a sol góor a jigéen Tuubaa ñi ngi ko fiy jaay sëñ bi mënut a woo jaaykat yeeg yëpp jaaykat yi dàll yi neen bu leen bu leen fi jaayate benn dàll boo xam ne góoru jigéen mën na koo sol dafa am dàllu góor dàllu jigéen salaay salaam ma ne woon na yàlla rëbb na góor guy niroo niru niru lu góor jigéen ak jigéen guy niru niru lu góor kon genre moom du mën a am nga xam ne noonu noonu diine yëpp dañoo bëgg ne kat góor jigéen waaye amut genre kon léegi fii kon ministère bi gis gis naa ay ay jàngati arab bu ñu dee traduire ministère ministère de la femme de la famille du genre la ñuy wax du moom de bu ñëwee ba ci genre duñ ko duñ ko nangoo firi genre mooy lan allah jins jàngati arab yi daara yi dañ ko ba xel bu ñu dee tr bu ñu dee tarjuma ba fii ne nañ ko bind suñ ko bind nit ñi duñ ko xam de da ngay bind wisaaratul mar'ati wal ailati wala jins ministère bi nga xam ne mooy saytu jigéen ak ak ak famille am néeg ak ku dul ku existé wut sexuellement existé wut nekkul góor nekkul jigéen buñ lii bu ñu ko doon traduire nii di ko jox donga dongay daara yi dongay daara yi danañ tiit ala jins mooy lan gis naa bëgg génn góor ñuy def ci dentité xaw ma xaw ma kiyam xaw ma permem ñu bind ci saar mu ne mu naan waaw man lii lu mu doon nee nañ ma nee nañ ma yow saar nga te man man du ma saar ay waay nga xam ne góor ga moom saaga nañ ko ay waay sëñ Macky Sall kon yow daa ne kon yow sa gars yi da ñoom saaga saaga nañ góor ga ne koo ne koo laajin maanaam fi ñu toll yàlla tere alaaji Macky Sall tey fi ñu toll yow sa way jur bu amoon dentité boo xam ne wala wala ab permis de conduire boo xam ne dañ caa bind saar sëñ Macky Sall yow boo ko xoolee boo ko firilee sa sa waajur wi mbaa du du la pe pes sax for maanaam noonu suñu aaday Afrique ji aaday aaday Sénégal baat boobu saaga wu rëy rëy la ne ne sa sa baay yow kat doo góor doo jigéen am na fii ba leneen lu sew saar buñ ko dee wax waa ji bu ne saar la wax na ko ci ginnaaw nanguwul ko ko jàppi góor wala jigéen boo demee ca ca Facebook ca Google bi daaw rek lañ génnee troisième sexe nga xamante ne mooy koo xamante ne du góor du jigéen góor la ñu xam ak jigéen muy un deux troisième sexe bi mooy x mooy ñii fi ñu tollu nag lii foo ko gisee yow ci mbub bëgg loo ko gis baal xel baal xel ne kii mooy saar symbole bii mooy firi saar symbole nag lu tax mu am njëriñ sémiologie wala sémiotique li tax muy soxla symbole ku ku mënta jàng wala ku amul jot buñ ko tegalee symbole bi amul liir automatiquement dana dana ko yàlla di jël man nag li ma jaaxal fii ci symbole bi lu tax mu am croix xam nga Canterbury kanisa kanisa al al anglicania kanisa bi gën a mag église bi gën a mag ci Angleterre daaw sëñ ba daa wax ne moom day man du ma doom yoon da ko déclaré de ne seet naa ndekete man kiñ ne sama baay la du sama baay lay sa abi al biologie déclaration bu rëy la ci man sëriñ bu jiite buy jiite ci église ba ne man du ma doomu yoon kon am na message bu bu bu bu muy jàllale en tant que kooku rasul kanisa al anglican yi léegi nag kon koo kon fi doolu mën naa xëy xëy na man saar la kon symbole bii mi ngi nii ay waay képp ko gis ko sol mbubb mu mel nii nañ ko nangu mbubb ma nañ ko ree nañ ko xas fuñ ko fépp fuñ ko disin nañ xam ne kooka la muy woote mooy saar lay woote mi ngi nii de saar mooy koo xam ne yow doonoo dara doo doo góor doo jigéen léegi nag fi may jeexale sëñ Mansu Mbay Mansoor sëñ sëñ Muntaxa ak seeni maas ca xilaafa yi sinro yi waaw yéen salaay salaam day waxoon na ne xawmu luut isaa raaytum man yaamalu bi amali xawmi luut faqtulul faila wal mafuul su ngeen demee ba gis kuy def la waa lu doon def mooy mooy góor jigéen rey leen ñaar ñëpp waaw sëñ bi alhaaji Macky Sall yéen du ngeen ko wax ni ko loolu bu ngeen ko waxee terrorisme mbaa juddu mbaa yéen mbaa lii mënut a mënut a jur terrorisme maanaam léegi ñuy rey ñu ne ñu ne lu tax ñu rey ko ñu ne ah yow di wax seen moo nu digaloon président Macky Sall nag yow nag yilifoonu ki yilif dëgg mooy suñu xam nga ki gëm diine moom président yi yilifu ko président boo xamante ne yaa ngi def laïcité laïcité bi nag moom ca ca référendum ba nu waxoon nañ ko waxoon nañ ko de nañ ne woon nañ kat référendum bi li muy jur ci kanam mooy yii yëpp waaye sëriñ si ñoom xamuñu ko ah tax laa ci mu tax de waxoon nañ ko moom waxoon nañ ko noonu booba ñu ñu ngi fii ci Daaru Xudoos def ko borom xam-xam yëpp dajee fii waaye nag mu ne sëñ Alaaji Ngoy Njaay nee na ko maanaam kat dara wutiw ci diine ah loolu xam naa kon moom sëñ Muntaxa kooku moom waaye léegi yow sëñ Muntaxa mi ngi jàngale kaamil ak nangam baax na de waaye fekk saara ngi fii dara du baax bu njàngoon téeméeri junni kaamil yàlla du yàlla du wuyu sala salama nee na bu nee na buñ dee yàq ci kaw suuf si te borom xam-xam yi waxuñu ba mbugal mi ñëw nee na na bu gaa yu baax yi ñaanee du ma wuyu ba tax waxu leen woon démb ah sëñ Mouhamadul Muntaxa yàlla na yàlla dolli wér sëñ Mansour Mbay sëñ Mansour sëñ Mansour Mbay wala sëñ sëñ Mbay si Mansour ñi ngi lay ñaanal yow yàlla dolli la kàttan ak ndimbal daaka ja ñëpp rek lañ ci dugal ñu ngi ci ñaan gi ay waay ana ana ñi xam saar lu muy firi ci yéen yéen kilifa yooyu bu bu dee saar leeru leen woo leen dongay daara yi ñu xamal leen luy saar ba ngeen mën a jël seen position définitive nag position boo xamante ne moom du ngeen ci dellu gannaaw ay waay ku mel ne si si sax gën a ferme anamu ku mel ne bàyyi si anam waay ah gars yooyu nga xam ne ñoom ay intellectuel dëgg lañu woon ñi nga woon ci temps ñoom xamoon nañ booba luy luy dox yaakaar naa ku ku ku leen fëggoon ne seen réew ma day saara nga fa ay waay dañ kii dañ ne ana sun doona ya kon ci gàttal kon man saar képp laa wax maa ngi nuyu képp koo xam ne def nga ci waxtaan Babacar Mbuub maa ngi koy nuyu baax te yàlla def na ci ay jéego yu am solo waaye moom mën naa wàllu politique mën na mën na ca dugg man nag man waxuma wàllu politique man man maa ngi wax rek ab dong ab daara buy wax ngeen sama bokki dongay daara yi ak sëriñ yi nga xam ne ñoom it ay sëriñ daara lañ sëriñ si sëriñ Muntaxa ak sëriñ Mbay Si Mansoor ñëpp ay sëriñ lañ ay dongay daara lañ léegi ñoom laa bëgg xam naa sax nag du man du ma leen jàngal ñoom bu ah war nañ koo xam waaye damay fàttali fa dakir inna fan sikre inna dikra tanfal muminin kon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon sëñ Abdul Xaadir kon xanaa dafa mel ni kon foofu kon mën nañ fee tëjee kon saara nga